qu'aujourd'hui le Sénégal entre définitivement dans une dictature. Mais je commencerai d'abord à remercier ce peuple. Ce peuple responsable. Ce peuple mature. Ce peuple digne. Ce peuple conscient des enjeux actuels qui, depuis plusieurs semaines, a pris ses responsabilités. Le tsunami de casserole que nous avons vu hier montre à suffisance que ce peuple digne a vomi le président de la République, M. Macky Sall. Mais malheureusement, ce dernier n'a aucune conscience de la volonté du peuple Forcé de constater que ce peuple n'avait plus le choix. Un peuple martyrisé, un peuple bâillonné, un peuple intimidé, un peuple emprisonné, un peuple privé de ses ressources, un peuple privé de ses produits, du produit, de tout ce qui est produit halieutique ce peuple n'avait aucun choix que de faire face à ce président qui, comme je vous le disais dans notre précédent point de presse, vit dans un monde parallèle. Monsieur Macky Sall, aujourd'hui, a été, comme je l'ai dit tantôt, vomi par le peuple sénégalais. Finu tollu tey ci fi ñu tollu tey ci Sénégal ni ñuy dundé jot na ñu wan Macky Sall une bonne fois que ne moom li ko war mooy mu abal ñu voilà un président qui déteste son peuple président la boo xamante ne ñaar lay déglu ses conseillers mystiques et les occidentaux Nous ñoo mën ci moom dara ces conseillers mystiques qui koy wax n'eko, faut mater le peuple faut les brutaliser faut les tuer pour un troisième mandat Avec les occidentaux qui koy wax qu'ils ko na tout pour am un troisième mandat pour ko des contrat qui nga xam ne nii signé préserver Macky Sall ñu lay déglu waye ñi nga xamné ni nii ko fal muy peuple sénégalais wu len joxu len orma yëgu leen depuis mu nekk fi depuis 2012 lolu lay wane sama camarade yi nga xamné ni nii ñoo jëkk wax wax nañu coono bi nga xamné mom la sénégalais gis nga li xew dafa am lu mu wane ci situation bi sénégalais yi du dundu moy la disponibilité des casseroles parce que casserole lui sénégalais yep dañoo depp sénégalais yi reer ñu té ñi ci tane dañuy añ rek ki rérul casserole

waaye ñu ngi wax askanu Sénégal neleen jamono yu ñu toll Macky sàll def na lépp ba mu des mu dégg li ko sénégalais yi di wax mu dégg li ko sénégalais yi di wan li muy dégg moom laa leen wax ci sama njëlbeenu wax mooy li ko xërëm xërëmkatam yi di wax ak promesse yi mu jox occidentaux yi looloo ko yitteel dafa y ci un état d'esprit de va en guerre xam nga dañuy wax niñ ko éléphant bu ci magasin ou porcelaine dana saccagé le Macky Sall la tollu ak opposition bi le tollu ak askanu Sénégal té ñu ngi dund ci yu sénégalais bépp bu yeewu ci dëkk bi na en sécurité le président Khalifa Sall mi ngi koy wax sànq cim réew député nga xamné ni dafa am immunité parlementaire nek en session ñu mën ko jël tëj té kenn mënu ci dara ñu wara xamné dëkk bobu képp ku fa yéwo jappal ni tout moment le tecc mën nañ la jël tëj la ci donc Sénégal mi ngi ay vous yu ndax ko ci kenn peuple il faut nécessairement que le peuple continue dans cette dynamique nous n'avons pas le choix nous n'avons pas le choix il faudra impérativement que ce peuple reprenne les choses en main. Cette souveraineté aujourd'hui confiée à Macky Sall, elle, a été confiée, elle lui a été confiée par le peuple et il appartient au peuple sénégalais de la reprendre. De la reprendre de façon pacifique, s'il est conscient de la situation, ou bien de la reprendre autrement s'il s'entête et persiste dans sa bulle présidentielle dama 17 di dans une émission ci ben télé ñom ma un déclou Ben bu am euh, entretien bu ak Cheikh Anta en 1982 gor ni Abdoulaye Wade président di nettali Ninga ni nga xamné ni ki wara remplacer Wade moy mu wara a président mi ci expliquer di wax ni ki war a remplacer Abdoulaye Wade ndawla wax ne Sénégal ba mu daj duñu xalaat une seule seconde ne koku mo wara remplacer Abdoulaye Wade mom ci bopam mënul imaginer une seule seconde que ne mom mo wara remplacer Abdoulaye Wade waaye mom, dafa am ben mission te nee na Cheikh moi Diop mooy wax ak en 82 ne ko ko dafa am benn mission mooy mu ñoŋal institution yi dëgëral leen ba kenn le monde bafouer la constitution mu ne ko nag am na ñetti mbir yoo xamante ne nii muy musiba dana ko dal su fekkee ne góor gi mooy wax de te Cheikh Anta moi moo wax ak moom ñetti mbir li nga xamné une mission yam suko défouler ñetti mbir dana ko am trois morts il va mourir moralement Il di bu génné yëkëti xalé yi dañ waxul dëgg day te nañ nañ

jël ñi nga xamné ni ñoko ñoo gënoon bañ taf leen ci wétam té loolu askanu Sénégal yépp teg na ci bëtam ci fi ñu mais nak bi ci gëna doy war moy moy ñetteelu moor bi physique bi mu su deful nank su continuer ci dynamique bobu du loolu man maa koy wax góor gi waxu ko Cheikh Anta Diop moo ko ko te vidéo bi je pense que ñu bëri gis nañ ko mu wax ni su deful nank mort physiquement Lolo nak ñun ñi nga xamné ni ño nek ay sénégalais bëgg suñu réew bëgg stabilité dëkk bi nek ci opposition bi ñaanaluñ ko ko ay julit lañ on est des humains kenn du ñaanal sa mbokk julit mu yegg fofu motax ñu ngi ñaan ñi nga xamné ni ñoy ñooy seeni conseiller nda xam naa ne na ay conseil waye duñ ko conseiller du leen déglu ñu ngi leen di wax nag conseiller yooyu nañu jël seeni responsabilité une fois Ben yoon ci seeni dund wala Ben yoon ci pal gi ñu leen pal ñu leen di fay ci xaalisu askan bi ñu jël seen responsabilité wax ak Macky Sall ñu ngi waxit son gouvernement di son ministre de l'intérieur Antoinette djom autant pour moi Antoine djom Du coup, wax Nico. Yon Binga bii nga le ne président de la république wala sax yoon bi nga président de la république Moko que ci dugal wala mu diko di gunge na dakal. te wax gouvernement bi ne leen bu fekkee ne am d'éthique once d'humanité de justice ñu wax

li jot jot na Yewwi Askan Wi position bi mu nek du ci reculer nako sénégalais yépp xam parce que am lo loo ni mënatul am te dootuñu ko nangu on a assez souffert on a été trop humilié on a été trop brutalisé à un moment donné on lui dit stop donc ñoñu nga xam ne ko wër ni conseiller ñii mu leen di dico ñii diko diko diko xalamal ñu ngi leen di wax ne leen nañu jël responsabilité wax ak mom donte xam nañ ne wul kenn donte xam nañ ne occidentaux donte xam nañ ne mystique déglu nañu def parce que dekk bi fa ko jëme ci musiba ko jëme damay waxtaan ak sam Macky sàll baaxul ci gàncax gi mu ne ma Macky sàll baaxul ci mala yi ba Macky sàll baaxul ci xale yi ma Macky Sall baaxul ci mag ñi ma Macky sàll baaxul ci góor ñi ma Macky sàll baaxul ci jigéen ñi ma Macky Sall baaxul ci mag ñi waaw boo nekkee nguur yow baaxoo ci kenn baaxoo ci dara nga jàpp ci yàlla nag bàyyi dëkk boobu bo mënee toxu nga toxu waye yit kilifa diine ñu ngi leen di wax di leen ko waxaat ñu ngi leen koy rappeler suñu point de presse bu nekk jot na ngeen jël seen responsabilité jot na mission bi nga xamante ne ni ñoom am nañ ko mooy ñu ginde askan wi teg leen ci yoonu siratal mustaqim jot na kilifa diine yooyu ñu wuyoo ci loolu ñu leen di xaare ñu wax ak Macky Sall les khalifs généraux ñi tous généraux ak orme bi ñu leen di jox yépp gëm naa ne bu ñoom responsabilité wax ak Macky Sall lii muy def dana ko dakkal nag Macky Sall mu ngi continuer jot ak clergé mu wax parce que dëkk bi fa mu jëm ah ñun day yeewi askan wi duñ ko ne te ñun toll nañ foo xamante ne nii wax naa ko sa wat suñu responsabilité ñu nekk lii ñu gëm ne moo njariñu askan wi xeex ngir turu askan wi xeex ngir askan wi mën a dund correctement loolu duñu ci jóg tey duñu ci jóg suba duñu ci jóg gannaaw suba Macky nag Macky sàll ñu ngi koy wax ne ko doy na na yeewu ci nelaw bi muy nelaw xam ne kenn bëggatu ko xam ne askan wi doyal na ci moom am na ñeneen ñu ko fi jiite woon su amee xel tuuti gis ñooñu fi ñu peuple Sénégal jaar ak ñoom dina war a yeewu xam ne xërëm yorul réew dana war a yeewu xam ne ay eh, saafaraak ay def ci ndox meeg def ci ceeb beeg suul ci géej gi loolu yorewul réew de xam-xam moo yore réew bëgg sa réew nga mën a téye sa réew bëgg sa askan nga askan nañ ko point de presse bi jàll réew dina gravité dina am fu instabilité ñi ñuy les forces de défense et de sécurité bu ñu nangu ñu tef leen ay bouclier ñu ñu ci

mu leen di jox ay ordre yo xamné ni day taal dëkk ñu diko exécuter waxuma nak les sept pyromanes ak cour bi nga xamné ni mom lañ doon wax cour suprême bi nga xamné ni mom euh, xawma xaw ma sax naka naka lañ ko wara a justice daal lu jëm ci walu justice jamono wi ci réew mi dafa nërmeelu motax nak askanu Sénégal jël nañu seen responsabilité té jël biñu jël seen responsabilité du dak du dak tant que Macky Sall jëlul ay dalam genn dëkk bi joxe tablier bi wala mu nekk nit xam ne nii gis nañ ne lii mooy li gën ci njariñu askan wi en ci ci wàllu élection yi une des élections inclusives askan bi du bàyyi li muy def te dina jël responsabilité ñu ngi guddal ci wax bu gudd bi wasalaamualeykum wa rahmatullah